on dit que ne ba ñu nekkee en 2019 on disait que ce combat n'était pas le combat de Khalifa Sall c'était un combat que l'opposition devait porté dans son ensemble pour être cohérent et logique par rapport ak sun position de 2019 aujourd'hui plus que jamais taxawu Sénégal ak parti yi nga xamante ni dañu nekk yëpp si Yewwi Askan Wi ils disent que ne ce combat ne doit pas être le combat de Ousmane Sonko ça doit être le combat de l'ensemble de l'opposition et euh, waxuñ sax waxi Ousmane ko les question yi nga xamante ni moom la ñuy xeex troisième mandat du fi am euh, ma président duñ ko bàyyi mu tànn ay candidats ça pour moi c'est des combats démocratique je pense que ne ñi nga xamante ni ils sont avertis nekk de l'autre côté sax euh, war nañu mën a associer à ce combat parce qu'il s'agit de préserver la démocratie sénégalaise. mais la question du troisième mandat c'est toujours posée seulement dernièrement avec les ennuis judiciaires de Ousmane Sonko. Mhm. ñu bari ko def prétexte en fait pour mener d'autres combats li ma bëgg wax mooy tey jii euh, on sait tous euh, depuis au lendemain de l'élection présidentielle la ñu et puis que ñu jiital combat bi mu bañ a bokk li ma bëgg a foofu mooy tey jii nii yéen au niveau euh, de taxawu Sénégal yéen au niveau de d'une certaine opposition les combats que vous êtes en de mener yéen ni jàpp nañ ne lu jaadu la lu légitime la bu ci mel troisième candidature bi bu ci mel ne euh, révision exceptionnelle dinañ ci ñëw après mm-hmm. mais les ennuis judiciaires de Ousmane Sonko en tant que tel yi nga xam ne tey jii waral coow li yëpp yëpp yëpp yëpp mm-hmm. le début euh, Ousmane Sonko d'ailleurs dem na dem na uy ji tribunal dem na uyu tribunal dans le cadre de l'enquête ses avocats se sont présentés devant la juridiction ils ont demandé un renvoi ils ont obtenu un euh, renvoi et li ma bëgg a wax foofu à deux reprises est-ce que jar na ko fi aussi non non non xam nga yóbbu ay nit woo leen ay nit après ñu arrêté ko c'est-à-dire aujourd'hui on ne peut pas reprocher au président Ousmane Sonko de préparer sa défense dans le cadre d'un procès boo xamante ni euh, boo xoolee euh, li daloon xale Khalifa Sall dal Karim mooy que ne l' agenda judiciaire dañ ko adossé à un agenda politique à chaque fois que ñuy jub élection rek dañuy singali benn homme politique. et par conséquent ñun on se dit que ne on doit être solidaire ak Ousmane Sonko parce que on a intérêt dans le cadre de notre démarche dans le cadre de la stratégie de Yao pour que mu am une pluralité de candidatures. solidaire ba ba fan li ma bëgg wax mooy li ma bëgg wax mooy mhm. euh, dans les deux cas yi concerné Ousmane bu ci nekk nit la joteel. avec pour l'affaire Khalifa Sall mën nañ jàpp y avait la de l'État parce que dañu indi affaire yoo xam ne les gens pas compris pour Karim Wade pareil mais pour Ousmane Sonko ay nit ñoo ko porté plainte yoo xam ne l'État yoonam newu ci malheureusement pour man duma bëgg a dugg dans le fond de ces dossiers parce que je suis avocat je suis mais le bi à un certain nombre d'obligations qui m'empêchent de parler de ces dossiers mais li ma mën a wax mooy que aujourd'hui Ousmane Sonko est une donne mais c'est un justiciable comme ñëpp. waaw c'est un comme nous tous mais n'empêche cet acharnement judiciaire contre Ousmane Sonko ñu wax ko que ñu bañ ko wax ñun ñëpp gis nañ ko par conséquent ñun on ne défend pas des personnes on défend des principes ces principes mooy que l'instrumentalisation de la justice dafa war a cesser ces principes mooy que ne politique ak justice bokkuñ il faudrait pas que le calendrier électoral di di di déterminer attitude bi nga xamante ni moom la ñuy am envers nos opposants